17 euh, heures dama am émission bu may enregistré Sen TV bàyyi sa yooyu nag yow tamit waaye ah da nga soof. mbër madame moo ma bàyyi boo dernier moment mu ne woon tey la rendez-vous mu ci Génico bi donc booy man ak booy ñoo fi nekk bugguma leen fi bàyyi ñoom kese ak ak jànq bi. booy sa téléphone maa ngi bi tubaab lim lim def ci kaw moo war a rafetlu. voilà. seen gaale yi dafa rëy même kii Mbaye Ndiaye asek naa këram fii la nekk. waaw mu ci kaw kii bi. ci. kaw mu ngi juste ci waaw magasin moom moom na ma jaay oto. waaw day jaay oto benn Chevrolet Malibu. benn dimanche dama romb gis oto bi rek woo ko ne saa yi ne ma onze ma ne ko yor naa neuf nii <laughs> saa yi ne ma nga ma foo nekk <laughs> mu ma dimanche bi yor nga neuf millions ma ko yor naa neuf millions mu ne ma teg ci cinq cent ma ne ko ñëwul mu ñëw ci oto bi laa ko fayee laaj ko ci oto bi laa ko fay. groupe boobu nekkoon sama kër Maris. waaw waaw groupe bu jaune bi nekk ci bunt bi. xam naa groupe bi ko jaayoon waaw booy xoolal. sa waa ji. ñu hmm. ma la nëbb. waaw sama hmm. dama ko bi mu jógee ci yow. dama ko ma ne ko mooy kii ne woon daf may defaral. Hmm. kooku foo la moo waxoon. ki ki daf lay kii. boobu la ma waxoon. boobu noonu. parce que ma ne ko gis naa ko ma defaral faux. Mhm. trois ans bu rouge bi rek waa ji wàcc ne ma non léegi jox ma trois cinq cent. keroog jour boobu bi madame jëlee oto bi. waaw madame dafa yóbbu oto bi yàggu rek mu woo ma ne ma noo indi trois cinq ma defaral la. mais ndege waa ji day day sóob moo tax ma bloqué woon la quoi. <laughs> parce que ah. ah mais booy un million cinq man kay boo ma waxee man man bu ma sañoon nga am deux cinq cent. waaw mu man léegi bu amoon ku taxaw ne deux cinq cent ma la jox ko jox ko. cinq ma ne garaaw bàyyi ma bañ la wax dara balaa kii léegi yow. yow kay. dafa amoon hmm. seen dëkk nii. booy gars yi ay doom mën nañ leen gaañ fii de. mën nañu leen door bal ti mu ngeen jaar fa faatu wala détails yi maa ngi Omar mu mu yónnee benn vidéo ngeen nekk ci oto bi di yuuxu détails yooyu ma ne mais booy dañu fon booy am nga sa njaboot doo live sa live discrètement ngeen nga bàyyi domeram yi affaire bi daloon badolo xam badolo gars yi balu fa taatu fatal lañ ko doon fii léegi yow waxal Banan no sai buko. Tay dama yow jël set. Ma ne mà koy jóg téeméer cinq yi. xam nga tey la lan tey la lan booy ci mois bi. waaw tey la lan ci mois bi. tey la vingt huit tey la vingt mà lấy nga man le seize. la sama tao bi di tëj. te war nañ takk. le seize juillet. seize bii di ñëw. la booy bi di tëj. sama doom bi xool fii dafa infecté. billahi dama ko yóbboon SOS beneen moo infecté woon yóbbu ko essence dentiste waa ji buddi ndey affaire bi deful rajo deful dara buddi bëñ bi mais beneen bi moo jël nag léegi xam nga fii fee bokkul ak fii. du benn xam nga non juddoo un cinq. un cinq waaw muy ñaata. muy quatre cinq. mu des ñaata. mu des cinq cent. cinq cent waaw dimbala ma ci. ma dimbala la ci la waaw. balaa balaa le seize. ah xaaral ma woo ko. koyoo. waa ji. kan si bi. waaw non waxuma kooku de. sama jabar ak sama. yow da bàyyi boo xam ko. non sa poche la jëm yow. dë dëggal ndey lii ñu bàyyi ndey kële en attendant fii ak ginnaaw suba wala ginnaaw waati suba. da laa bàyyi fii. mu benn fu ma doon dugg benn gars ma doon yónnee trois cent cinquante mille. mais dama doon dama lay jox andu. mu nga wutee ko rànd. jaay jaay bii daal. non non non directement gisee sa conseil bi. conseil bi daal. sa gars la foofu sa waay. xanaa dañu may ku nekk benn kii la nekk benn un an sax.

Voilà le numéro qui est là, consul, consul de France. Hum. ci mais xamuloo là, laa amuloo moom ma jox dara. waaye ma ne moso salaatul faatiha moom mosoo ma jox dara. damay xool waaw damay xool damay xool rek. Serigne Touba damay xool xool lu ci ne. xool dara newu ci. Serigne Touba laa ko seedeel mën naa la. xool dara ci. xool takk yóbbu dara nekk kii ko non non kii moo ma ko abal keroog. <laughs> yow doo mos a moom. Kamu. Hmm? Kamu bii ànd ak moom yaay déconné. yow damay topp sept ans di la woo du ma doo ma jël Amadou Fall ba <laughs> doo di dara ci laa nekk jaajëf jaajëf Ablaye Dia loolu laa leen wax may leen dootuma ko seetaan may leen duma seetaan kenn di récupérer li nga xamante ni c'est c'est vingt ans de ligue travail <laughs> waaw dem toog di seral gars yi bëgg a embourgeoiser amul fa may leen nit ki liñ la xamee ba mu def la li bay daan dundee ba am sikkim na ci dee tama waaw waaw mais amul ci àdduna bi booy billaay wal kitaab bi Se sa Bil la yowel kita bi Mane ko d'akor Muzik beg yi ni Mane ko d'akor Donk amge sa ma gran mom Liko be mom Nenanko Delegel Delegel Kre yenge di hip hop Mene delegel Mene beke di nek koutan di hip hop Jof di hip hop okipasyon Mane ko lo euh, sa Se ne pa to Kon firme Non donk asime Mene ko wadak nou jav lenen Muzik genye zi albop dix mille nga délégué ak ji hip hop ma validé ma validé ngeen dem pharmacie ngeen jënd garab yooyu noonu non faal barki daa odoo taal dama toog toog toog ma ne sawaay oo de hay soko butee goor ba xëy dee ay booy la ñëw capitaliser lépp ane ni coode coode lekki ci dawa comme nellumu nga foofu coode dum waaw waaw non

哇！又乜乜乜你人安嚟？billahi ya <laughs> wal kitabi kese kese ah waay bila ibu kita kitabi te benn leader bu ci gën a ñàkk xorom rek du moroom mu ñoom ñëpp buñ dajaloowee ah waaw loolu de laa leen wax mais mais yaa ngi ci jàmm booy dama rek ma ci mën a dimbale dama bëgg gisanteeg gan gi euh, euh, consul bi bu France uh-huh. kan ci waa demee uh-huh. waaw uh-huh. kudo Ok. Ok, ok. Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît. Ouais, bataille, ah, bah, bon waaw euh, consulte. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. super super super jaajëf bu jaajëf maa ngi gis liggéey bi tamit rafet na trop yeah ma ngi gis de ma vraiment ma ngi gis quoi yow mom moy lool waaw waaw ba pare ñëpp support la ci nee naa dafa am ñu fi nekkoon respect bobu il faut ñu continuer jox leen ko waaw donc du am lu xew tay rek ñu naan non ñi non ma ngi leen dañuy doul

dëggantaan

comandando de futuro humanidad en que mira la baja como la llegan en la pobre. Lo bueno, mal que tiene que ser más. Me despilo en banco. Entonces más ba uno mo ko wax ba mais li ngeen laaj ma dafa sori sama point de vue rek ngay laaj ba nga xëy nga xëy teg sur le plan ni ma waxee nii si ci may sama dàgg. Yeah. Yeah. Dama ko xoolaat deux fois, ça, je vous le si si yaa dëgg la ah yaa mais anyway yow man man maa ngi quinze. maa ngi entre quinze et never Yes, yeah. anyway, amul benn problème, amul benn problème. Waaw, mais jàppal ci tout que bëgg naa ko. Amul benn problème mais sa waa ji fii ay cinq jours yooyu dina baax. lan. mooy bu xonq bi. moom fin du mois la woon day teg si. moom mhm. moom. moo yor li ñu ngi kii ñoom ku ku bees ku ñëw. Mhm. moom moo ñuy représenté ci gars yi. ok seen groupe bi la bokk. mais mënoo ko dugalee comme ni ngeen mu dugalee noonu. bu bu kii ba kii daal ma ma ma xool ak moom loolu. Hmm. ma xool ak moom loolu. ok toolu. ma xool ak moom loolu bu fekkee sax du ñu du ñu am euh, France pourquoi pas Belgique wala. Belgique Espagne. sa secteur bi yëpp moom ñun kuñ ci toogal man ku ma ci toogal consul bu ma ci toogal dama ko naan léegi léegi man la déglu. il va le faire. il va fi. kan ci kii. suñu ji ne woon consul France. waaw naa nekkul fi ñoom kii. xam nga moo tax may jaar ci yeneen yeneen kan. xaw ma René xaw ma fas naa tur bi. kii la muy. mais moom daanaka leen J Jérémy Jérémy. Jérémy waaw Jérémy. waaw Jérémy. guerrier la woon quoi moom. guerrier la woon. mais il a plus le numéro. ok. booy bàyyi ma daw. man li la xoj. li la xoj moo ma xoj. sama jabar génn. gisoo lii damay dem bay waaj a génn mu ne ma day dem kër yaayam. te booy yi fu ñu dem dañoo ànd ak booy yi moom laa naroon envoyé mu dem dem faji booy bi mais comme que kii day tëj day tëj le seize hmm? ma ne nañ àndandoo dem ko fii ak cinq jours am na moon yu muy récupéré waat ma jox la cinq yi pour waaji bàyyi ma nopp sax te yow moom su ma waxee yaa ngi rappelé wu suñu beneen mooy moom mos la am wala fi mu taw de <laughs> wala dem bi nga naan bi ngay wax ak kii bi bi ma li ma kii envoyé Omar bi nga naan j'ai j'ai la mémoire d'éléphant ko waaw waaw. damay xalaat quoi dégg nga la. <laughs> c'est-à-dire boo nekkee président moom fee laay dem fee laay dem toog yi. mooy sama dollar laay dem toog yi. mu ne ma non mais booy Thierre Thierre ni ñu koy def ma ne ko Thierre man ma ne ko Thierre du ma sax wax ak moom. <laughs> kat si. Thiat waaw oh. mu ne ma da ngay woo Thierre di ko saaga quoi ma ne ko Thierre. mu ne ma ah mu ne ma. ma ne ko Thiat mu ne ma ah ma ne ko Thierre moo ñu njëkk a defal teraanga. Hmm. ma ne ko yaa ngi dégg ma ne ko te boobu kenn mënul. moom sax mënu ko duñ koy def mm-hmm. il s'est privé wékki léppam lu ngeen bëgg ngeen rido mm-hmm. maanaam mayu yéene ma ne kooku tey bu toogee ci ay ma mm-hmm. man damay bàyyi lépp di ñëw di tibb ma na ko ceer ceer lu ma def ci lu baax boppam la ko def lu ma def ci lu bon boppam la ko def te def moolu ko

bi ngeen ko gisee ñu génne téléphone bi maye leen ñi moo xew yem na de yem na di moo xew temps yi tamit xam nga moto xalaat tamit kenn du ko si écoute bii nii loolu laa dégg kenn du ko déglu mais loolu est-ce que gars yi waxuñu rek gars yi Sonatel Sonatel bu ñu la bëggee déglu ligne bi la ñu déglu ligne bi la ñu déglu soxlawuñu téléphone bi ñoom ligne bi fa ñu toog la ñu écoute ligne bi. non yow doo ci mën tous ay xànju la rek. ñoom dinañ dinañ nangu gars ay Interpol dinañ nangu gars di defar ay téléphones yoo kenn du ko bi déglu. WhatsApp moom wóor na. ligne bi la déglu WhatsApp moom non WhatsApp moom kenn du ko kenn mënu ko laal. parce que moomuñu ko parce que ponkal yëpp. te booy bi dégg naa te ki ko dégg naa dafa aju. su <laughs> tam multimilliardaire. Ah, mais gisoo

bo gënënté ci mbedd xamal ni yaa ngi ci mbedd xamal ni tamit bàyyi nga kër bàyyi nga njaboot un tam parfois boy ñuy gis sen papa ñukoy pompi. pamte yooyu non affaire bi non, non traumatisé sax dañu na ma papa tu vas reste avec nous C'est accident les policiers vont t'attraper encore non trop non seulement attraper mais xam nga tey mën nga daje benn con boo xamante nii maanaam dañ ko mën dañ ko mais benn action mooy am rek. xam nga benn seytaane ñëw rek mu génne tël. mais dëgg la après xoolal. dëgg la. comprendre nga. xam nga fi ah, moo tax parfois xam nga ak. ak diplomatie quoi ngay. waaw parfois nga dox ak diplomatie. xam nga ñëw gars yi nii nga waaf xam nga. temps sax waaw. booy dimbala ci. nekk ci benn. waaw waaw eh, bàyyi leen ñu ne waaw. ñu montre bi. montre bi nga wax jaay mbër naka mu <clears throat> yaa ngi am jàmm affaire yi mu ngi avancé woo maa ngi lay sama téléphone nekk danga ma yàpp wala lan la garab bi ma la waree jox xam nga naa la nga jël ma woo naa la nga jël ma yaa ma rappelé combien de fois nga ma rappelé léegi ma lay woo nii mënu ma la jot te doo rappelé quand même hmm? te date bi muy jot le seize bi ma la waxoon muy nii di ñëw. conseil man. li ma comprendre mooy man dama la woon ñàkk fayda bu tax nga yab ma ma lay woo doo jël sa téléphone su ma la woo ci nga jël sa téléphone ma wax la li ma lay wax dama lay woo doo jël doo rappelé te bu dee moo ne la nga rappelé bëgg ma dugg ci détail quoi bëgg ma dugg ci détail respecté ma tuuti quoi parce que déjà ne nit bu la woowee boo gisee appelam da nga koy rappelé yow gis nga la soxloolu ma lay expliqué am na lu ñu dund soxloolu ma lay expliqué am na nu muy demee da nga may woo dangay jël sa téléphone woo ma man mosoo maa defal dara depuis ñu xamante ak léegi mosoo maa defal tous au contraire bëgguma wax na quoi parce que yii c'est chiant.